élection bi c'est vrai que ci ville yi lañ ko gën a làbbale mais dañ koo làbbale làbbale bu mett ci dëkk yu ndaw yi tamit mën naa la wax dëkk yu ndaw yu bari yoo xam ne mais mais le moom Matam tamit nee nañ moo comblé lépp ah Matam Podor Dagana boor boobu nee na ay score soviétique lañ fa dóor voilà loolu xam nga lu mu lay wax d'abord ay tappalay kese parce que gulet ñu gis ci élection ñu joxe limu euh, votant boo xam ne ñoo ëpp population ba ah bon moo am foofu mais ca Podor Podor en 2019 la population de Podor tournait autour de 98 000 habitants maanaam matuñu sax 100 000. en 2019 en 2019. en 2022 mooy ñetti at après ñu ne léegi Podor passé na de 98 000 habitants à 225 000 habitants yoo xam ne mën nañoo voter ça veut dire waaw ñoo xam ne ay électeurs lañ loolu la ñu annoncé actuellement ci résultat yi nii ay tappale c'est-à-dire euh, li ñu bëgg mooy kon am nañ près de cent vingt cinq mille Podorois yoo xam ne entre deux mille dix neuf ak léegi juddu nañ fi màgg nañ fi ba am âge bu ñu mën a voté mooy am nañ fi dix huit il faut ñu respecter nit ñi mm-hmm. nga président Macky Sall. et j'en profite pour dire aux magistrats des des des différentes cours d'appel que gis nga nit dangay xam ne yow bi ngay jàng réew mi di la fayal ngay jàng say waajur di la teete ba nga am say diplôme ba am sa maîtrise dem defi euh, ENAM wala ENA aujourd'hui ba nekk ab magistrat xaaroo woon benn président pour mu lay won yoon wooy jaar parce que da nga prêter réew mi ab Macky Sall moomu ko te day dem te nguuram a ngi jeex bu mu leen dugal mu ko ci musiba maanaam di leen dugal ci yoo xam ni dañ fi jël ay décision yoo xam ne bu bu ëllëgee ñëpp ne accam bu ëllëgee ñu koy tooñe seen i sët ak seen i doom man li ma gëm mooy magistrat yi dañ jël seen responsabilité gox bu ci mel ni podoor nañu invalider l' élection là parce que bu fekkente ni dama ne la dañ koy invalider loolu mooy yoon à Podor ce qui s' est passé un juge boo xam ni teg na mbir mi ci yoon day invalider le scrutin à Podor parce que mënuñu am un fichier boo xam ne ña fa nekk ci lim ñoom population bi matuñu loolu wala sax ñuy voté ëpp li nekk ci fichier bi donc Podor ce qui s'est passé là-bas mais c'est un scandale c'est le scandale du siècle mosuñoo gis a population bu yokkee noonu maanaam nga nekk dix trois ans après nga nekk vingt cinq musta am amul benn dëkk bu mu am même dëkk yi nga am démocra démographie dafa élevé comme Touba muy le le département de Mbacké le département de Dakar le département de Thiès mooy département yi am doole dëgg ñoom ñëpp kenn yokkewu ci noonu amul benn gox bu yokkee noonu Macky Sall dem di yokk le nord le Fouta di yokk la population électorale de de Matam euh, de euh, la population électorale dans les trois départements. Ranérou euh, Ranérou Podor Matam. Et vraiment c'est inacceptable ce qui est en train de se passer dans ce pays c'est-à-dire que kenn mënu ko fee nangu moo tax man j'ai demandé à Yewwi vraiment ñu préparer Euh, vraiment le contentieux parce que contentieux lañ jëm. recours yi quoi. ah oui dem contentieux parce que mënuñu ñëw bu fekkente ne magistrat yi annulé wuñ les bureaux de vote yi nga xam ni c' est de vote yoo xam boo leen xoolee xam ne mënta nekk da gis ñoo xam ne dañuy nekk yow taux de participation Abdoulaye Daouda Diallo ma gis ko muy def conférence de presse ak euh, ministre Cheikh Omar Anne mhm. ministre de l' supérieur heureusement ko wax toj toj a parce que Abdoulaye Daouda Diallo toog di joxe ay chiffres yoo xam ne population Podor tolluwul noonu ba noppi di joxe ay taux de participation yoo xam ne amul fenn fu mu am Sénégal nee na ñoom seen i taux de participation ñoom rek ko am Podor nag mhm. parce que tout le monde sait que le taux de participation au niveau des législatives de tout temps day wàcc. Mhm. am na nag ñu koy combat naan euh, de tout temps rarement lay lay romb cinquante pour cent. Mhm. mooy bu deux bu 2017. voilà c'est rare 2017 dafa amoon un enjeu particulier pour cent mais cinq ça tourne autour de 50 hmm. pour cent le taux de hmm. participation te lu ci ëpp ci réew yëpp même réew yu développé yi day wàcc des fois bay 40 pour cent 42 pour cent 45 pour cent c'est normal xamul tax parce que ñi comparé scrutin yi bokkul scrutin yi bu dee élection locale la dafa bëri investi ruq boo dem am na ko fa nekk conseiller di mën a mën jël seen waa koñ ñu leen jàppale leen ma ma nekk conseiller parce que bu dee liste yi dafa bari liste bu nekk euh, am ay investi ñu am ay presque plus de euh, trois mille investis ou quatre mille investis bokkul ak une élection législative où dans chaque département am na département yoo xam benn investi la par liste ak son yoo xam deux investi la par liste et leur suppléant ñooy quatre dans tout le département mais ñooñu mun ñu mobiliser kenn askan wi duñ ci sentir seen bopp parce que ñoom des fois sax nga gis département boo xam ñan fa investir dëkkuñ ci biir capital départementale bi loolu moo am loolu moo tax pour ñu mobiliser électeurs yi électeurs yi ne sont pas directement concernés parce que seen mbokk nekku ci seen xarit nekku ci extra alors que local ku ci nekk am nga sam mbokk mu ci bokk wala sa xarit bu lay woo téléphone la dimbali ma suba nga xëy voté ci loolu moo tax taux de participation bi di gën a élevé dafa am beneen bi bi am taux bu élevé mooy l' élection présidentielle kooku enjeu bi moo tax parce que kii xëccoo réew boo fareek moom da ngay jàpp ne su ci jotee yow am nga ci ay avantages kon ñëpp ay am intérêt ci xeex pour ñoom ñu yore nguur gi parti ya ca bokk ak coalition ya ca bokk ak ñëpp day am enjeu parce que poste bee rëy ki nga mooy njiitu réew mi ñu koy xëccoo ki ko yore moo yore lépp comme moo yore lépp nag day am enjeu maintenant nag élection législative c'est normal que taux bi wàcc mais Abdoulaye Daouda Diallo taxaw ci conférence de presse bëgg ñoo gëmloo ni taux de participation bi gën a faible dans la dans dans le Fouta a commencer par Podor nee na mooy cinquante virgule pour cent maintenant mu ne dem nañ ci ay taux yoo xam ne dem nañ ba quatre vingt dix pour cent quatre vingt quinze pour cent. taux de participation abla ci taux de participation loolu Ablaye Daouda Diallo moo la gën a xam ne du dëgg. loolu ay invention la. loolu ay bourrage d'urne la. dëppoowul ak li am. maintenant nag loolu li ko waral. mooy que ni dans ces zone la euh, Yewwi Askan Wi. ils n'ont pas été très présents. voilà yéen foo leen nekkoon loolu mooy nekkoon ba di xew. loolu man d'accord na parce que élection tamit da ngay waajal sa bopp. c'est une faille. waaw c'est une faille. mais ñoom jegewuñ loolu ay njuñ njaaj la ay tappale la ay bourrage d'urne lan def mais dans le Fouta ku gis li fa Ousmane Sonko def bi mu duggee parce que kii dontu tuddee boppam ni moom mooy euh, euh, géwalu ki moom titre foncier bi moom ba Ngom dane woon Ousmane Sonko du fa dugg usmaan Sonko fa la fanaan def fa ay meeting yu rëy bi mu duggee war a soogi ñëpp gis nañ meeting ba mu fa def dugg maatam toj ko dugg Kanel toj ko fépp la koo fees dell meeting yi génn ñépp taxaw ne ko yow Ousmane yow la waaw léegi malheureusement ils n'ont pas été bien organisés mais nga Fuuta c'est pas un maillon isolé du pays gis nga li xew Casamance moo xew Fuuta mooy xew moo moo xew Louga Njàmbur moo xew Saloum c'est l'ensemble du territoire qui rejette la gouvernance du président Macky Sall Fouta ak sénégalais yi ñooy yeneen sénégalais yi ñoo yem. mais pourtant vote bi reflété waaw moom laa lay wax daman la problème d' organisation moo fa am mais daman la euh, taux yi ñu joxe au Fouta Macky Sall amu ko cette année bu fekkoonte ni am na une bonne présence au niveau de l' ensemble des de vote une bonne présence des mandataires dans l' ensemble centre de vote dana leer nañu ni le Fouta a basculé basculer nag waxuma bu basculer rek daañu dañ da so euh, euh, euh, coalition dafa gagné mais dafa war a serrer dafa war a serrer comme ce qui s'est passé à à un peu partout dans le pays. parce que. dans même Louga loolu ma fa xew ah. Louga Louga loolu xew fa. bu bu ndaw la courte Louga Louga. Mhm. Yewwi Askan Wi moo gagné. Ah loolu moo am. pourtant commission bi génnewuñu loolu ah. dama ni li dal Yewwi Askan Wi au Fouta. moo am ay zone yoo xam ne amuñu fa ay mandataire ak ay membre de bureau de vote ci yenn bureau de vote yi man sa jàpp naan ne c'est des bureaux fictifs loolu moo leen dal à Louga à Louga ce qui s'est passé c'est simple dañ leen a wulli dans la ville amul benn centre de vote bu Macky Sall gagné Louga amul benn même dans les bureaux de vote ils ont été battus bureau de vote sax benn pour ñu gagné benn bureau de vote j'ai pas entendu à Louga un bureau de vote gagné par Macky dans la ville les centres de vote yépp dañ leen fa baat Mamour jàllo bureau dañ ko faa gañe gañe ko centre am Mbéri Sila dañ ko gañe ville dañ ko gañe ci centre de vote bi mu voté gañe ko ci bureau de vote am bi mu voté euh, euh, kii Moustapha Diop Moustapha dañ ko gañe bureau de vote am gañe ko ci centre de vote am Aminata Mbengue Ndiaye voté si na voté si wul bureau bam vito bam doon bureau bam doon voté mhm. bu ñëwoon nit même chose dañ ko faa gañe même bu voté si wul frère am la même chose dañ koo gagné bureau de vote lii dëgg daal mooy Louga dans tous les centres de vote ils ont été battus. mais kon may ma ma ñëw may ma ma ñëw dama lay expliquer. ba nag ñu ñëw dans le département parce que loolu c'est la ville. te écart am ci ville bi dëkk yu ndaw ndawaanu Louga yi mun ñu ko combler parce que de petites communes rurales man nag Louga laa dëkk parce que fa laa jàngee fa man amee bac man baccalauréat maa ngi ko amee lycée Malick Sall bu Louga